merci beaucoup bon en fait euh, avant loolu sax commencé nañ di liggéey si loolu dañ créé mouvement bi pour mettre la forme mais le fond. Mm-hmm. moom doon intéressé dans un premier temps il faut les se battre pour condition de vie population yi surtout villageois yi ñu améliorer lu ma lu ñu jëkk def ñun mooy organiser les femmes des villages qui sont confrontées à des travaux très durs bojj soq wol yenn saa yi da ngay dugg oto wala nga yëg charge pour yóbbu ko ci beneen dëkk ñu waral la ko pour nga mën defar cere pour nga am tiga dégg da nga koy dem jënd ji ci taax yi te pourtant ñu ngi bay ñu ngi produire lu bari foofu si zone bi mhm. alors ñu financer jigéen ñi souvent sax dana am yeneen problème sociaux yoo xamante ne xëy na dafa daan posé euh, une fois bi may créer le groupement des des femmes de mon village bi ma juddoo. ban village. Gàmbul. Gàmbul laa juddoo Gàmbul Kër Matar laa juddoo ci arrondissement Ngoth département Kaolack foofu laa juddoo ku dégg lu may wax dana xam ne diggante Gàmbul ak Gànjaay bi ma duggee école ça fait cinq kilomètres foofu cinq kilomètres yi ma doon dox di jànge moom la jigéen ñi dox pour dem wallu ji wala ñu dem branché fa seen seen téléphone pour ak yeneen ak yeneen euh, jigéen ñi su ñuy am doom souvent dañuy am ay problème de transport de déplacement li ñu njëkk a def mooy organiser les femmes yëkkati un fonds may leen ko waa lebal leen ko mais may leen ko lii fexe leen ba ngeen xamante ne su ngeen amee yeneen difficulté yi ngeen mën ko régler ci saasi te du ngeen dem lebi kenn ñu dégg liggéey ñu jël xaalis boobu ci liggéey di ci liggéey ba mujj femme au développement jënd ci ay ustensiles de cuisine yoo xam ne su ngeen amee wala ceeb. ñu mën duñu sonn seen biir mm-hmm. te duñ ko loué di jël fay transport di ko jëli di ko delloo juwaat su dara yàqoo ñu fay ñoom ñu amal ko seen bopp jënd ay tente ak ay ay cin ak ay chaise ak lépp ñu continuer liggéey ni ñoom ba yàlla dimbali ñu avec l' appui de l' de l' éducation de Kaolack ñu ubbi école dans le village ak deux classes man am na des presque ñun suñu mouvement boobu chaque année ñu defar fa abri provisoire pour les enfants. abri provisoire. abri provisoire. Mhm. ñu dem ba am en contact ak société de la place ñooñu ñoo ni soxla suñu zone benn espace ci suñu zone pour defar la route Kaolack Fatick. Mhm. ñu jox leen ko sans condition ñooñu tabaxal ñu mosquée tabaxal ñu école léegi am nañ six classes. am nañ directeur am nañ ay xale. te loolu lépp mouvement bi dugal na ci loxoom. moom moo koy mooy précurseur bi sax. que man sama bopp maa toog mhm. ko ko mu envoyé une mission ñu ñëw def prospection je me rappelle temps yooyu. Mhm. l' actuel président du CNG moo nekkoon moo yore woon chargé des nouvelles ouvertures de la Seine. c' est lui a fait le travail de prospection sunu village ba ñu am école tey. Mhm. bon ensuite mu ñëw. en compte bu ñu jëlee pouvoir bi en 2012 je travaillais avec d' autres collègues ñoom Mariama Sarr consort je la salue au passage may ñu ay moulins à mil amuñu woon courant il fallait les échanger avec des moulins à mil à gaz ñu jël yenn man man sax ma jël responsabilité jënd à mil à gaz moulin à mil électrique bi ñu jox ko waa mm-hmm. ensuite avec l' appui de la commune parce que nous sommes en collaboration avec la commune de Thiomi bi ñu bokk le maire Alexandre Ngom aussi ñëwaat joxaat ñu yeneen ñaar wala ñetti machine yoo xamante ne jigéen ñi léegi elles suma compagnonnage encore ak président Macky Sall permettre nañu. Mhm. on a trouvé du travail pour certains jeunes yoo xam ne foofu lañ juddoo ñu dugaleen ci entreprise ñuy liggéey di dimbale seen i parents donc si néegu ñax laa juddoo mais tey soo demee fu ma dëkk waxuma da nga fa fekk ardoise mais mën nga fa fekk. mais mais mais pourquoi vu que lii nii yëpp am nga ko ci nguuru Macky Sall sa village développé wu na si et tout pourquoi ne pas continuer la collaboration gën a liggéey. Aïcha gis nga nit da lan mooy gëm-gëm bi gëm-gëm lii ak lii ak lii dinañ ko def man lii ak lii ak lii mooy sama vision loolu méngoo ak man li nekk si man ak li nekk sama mouvement damay ànd ak yow. parce que damay yaakaar ne bés bu ñu toogee fi ñu war a toog li nga xam ne moom nga gëmoon moom ngay doxal parce que man li ma gëmoon loolu lay doxal du ma si jógee. alors su ñu demee ba nga xamante ne excellent benn niveau parce que yaa ngi ma doon posé question sax man campagne présidentielle 2019 j'ai pris mes fonds propres avec mon mouvement ma dugg campagne al président Macky Sall j'ai fait beaucoup de zone yoo xam ne man sax man j'ai j'ai été le seul politique bu yegg ci village yooyu ñu réélire pour le deuxième donc du ma frustré. waaw mais en retour. vous pour la continuité pour la continuité. damay ah. Mm-hmm. vous avez eu quoi en retour au moins am nga remerciement. wala non euh, moo tax ma ne ku wax ne man dama frustré da nga ma xamul. parce que ni mm-hmm. ma xam xam nañ ne. man accompagné naa président Macky Sall ba dix neuf deux mille dix neuf bokk ci gouvernement yi yi mu créé woon liggéey naa ak sama sœur Aminata Touré. liggéey naa ñaari yoon ak sama sama camarade Boun Mohamed Boun Abdallah Dionne. non du wàccoo no on est pour mu may defal man am naa ba pare. Mhm. man soxla uma ko ma defal li ma gëm mooy dañuy ànd si dara lu ñu boole. d'accord yow ngay def li la war man may def li la concrètement leen taxale lan la. non taxalawuñu rupture bi lan non taxalawuñu dañu dem ba mu yàgg moi j'ai créé un mouvement. Mhm. man j'ai créé un mouvement pour mouvement bu nga xamante ne bii. avec Macky au ou sans Macky Sall mouvement continue avec moi ou sans moi le mouvement continue. d'accord parce que c'est un mouvement de débat. balaa may ñëw si Pape dama for ci weewu béy ni que nga jege da nga jege ñoom Ousmane Sonko loolu dëgg la. Euh, peut-être xëy na si orientation politique éthique euh, comme état de droit euh, la la la le combat contre foofu moom mën naa fa ànd. li nga wax leerul ne. dama ne. Mm. su nekkee man kër Gueye ni ma li ma gëm man ni ma mel muy nit ki dafa war a fonk boppam nit ki dafa war a dafa war a jub mm-hmm. nit ki dafa war a dëggu mën naa déggu ak ñoom ci principe yooyu kon demain mais mm. am na yoo xam ne man du ma si bokk comme lan posé nga ma question deux ou trois fois naa la cité benn nit ma ne ko cité c'est pas par méchanceté mais man sama étique moom moom ku fi nekkul ma wax ci moom te la may wax ci moom nekkul lu lu lu rafet wala lu baax wala lu koy yëkkati man mënuma loolu. d'accord man. Euh, euh, comment dire. lu mu war a am solo parce que développement.